ñoo gën di wax waa ak waa mooy waa DIRPA ñoom ñooy gën di communiquer que la gendarmerie ça aussi dañ leen koy récemment rek y a un euh, haut gradé bu ma ko doon reproché ma ne ko ñun su dañuy bëgg di leen approché et tout ça pour les émissions et autres parfois mais c'est c'est c'est difficile mais tout à fait Khady tu, tu, tu, tu bien fait de mettre le doigt sur ce problème la xam nga nous par essence depuis 1960 jëlee indépendance mm-hmm. on a mis les armées mais sur un piédestal. Mhm. mooy maanaam de sénégalais à part. Mhm. soo ciy wax sax ñu ne non non. kii mhm. alors que c'est des sénégalais. à part entière. seen liggéey c'est pour le Sénégal et les sénégalais. donc munoo munoo di liggéeyal pour les sénégalais ba pare sénégalais du ñu xam yow liggéey liggéeyal mooy lan. c'est vrai maintenant ça peut être emprunt. de de secret et tout tout à fait normal. mun na am que voilà mu am ay domaines yi nga xam ne c'est exclusivement militaire. mais mu am ay domaines yi nga xam ne aussi. le sénégalais daf ko war a xam. rien n'empêche rien n'empêche aux sénégalais surtout. ceux qui sont dans les médias. d'essayer de savoir. par rapport à tel sujet li yëg li yëg lan moo ci taxawaayu police lan moo ci taxawaayu gendarmerie lan moo ci taxawaayu armée mhm. léegi nag y a des opérations nag yi nga xam ne peut-être militaire yooyu ça n'intéresse pas les Sénégalais mhm. mais la nga xam ne mooy le quotidien mhm. des armées le quotidien de la police le quotidien de la gendarmerie ou de la douane les Sénégalais dañ ko war a accès c'est-à-dire waruñu toog di xaar euh, communiqué gendarmerie bu ñu jàpp nañu euh, nangam sangam au jour le jour war nañu communiquer de telle sorte que dana nekk euh, dana am un effet. Mm-hmm. tey xoola par exemple un service comme la euh, euh, une corporation comme la douane. Mm-hmm. mais il communique même je dis même il communique à outrance. Mm-hmm. c'est-à-dire que tey la douane permet aux Sénégalais foo muti nekk nga xam ni que lii yii mesure la douane jël. ci tel domaine. yokk mhm. nañu lii dañu war a yokk lii pourquoi ñu yokk lii lii yëg lii yëg moo tax. Mhm. ainsi de suite pourquoi tel taxe ou bien tel truc ñu dugal ko lii lii yëg lii c'est-à-dire le Sénégalais a besoin de savoir le Sénégalais doit être à mhm. un niveau d'information bi nga xam ne. il ne doit plus être un consommateur. mais il doit être un acteur participer ci li ngay def. autant noonu la euh, gendarmerie parce que tamit ils ont affaire à des Sénégalais. c'est ça on peut comprendre pour les armées militaires yi ñoom ils sont dans des missions yi nga xam ne mm-hmm. peut euh, guerre la consort il a mm-hmm. aucun problème mm-hmm. mu lo ça on peut l'accepter mais quant à la gendarmerie qui a un volet bi nga xam ne qui est quasiment un volet de police ah yi nga xam ne mooy la police nationale ñooñ dañ war a di communiquer régulièrement avec les Sénégalais c'est-à-dire les Sénégalais ne doivent pas ignorer leur mission de tous les jours sénégalais yi war nañu nekk en mhm. temps réel au courant de ce qui se fait Surtout. je parle pas des opérations et consorts mais je dis euh, ñu euh, xam exactement mhm. les missions rôle de la police et de la gendarmerie surtout ça surtout les missions loolu nag mhm. euh, au niveau des médias Les gens en ont besoin. Il faut qu'on arrête de nous euh, parler de grande muette. Grande muette, c'est par rapport à certaines questions mmh. d'ordre sécuritaire, qui n'intéressent pas les Sénégalais. waaw. Mm-hmm. mais sénégalais yi police bi seen police la. Mm-hmm. gendarmerie seen gendarmerie la. douane seen douane la. Mm-hmm. dañu war a ce qui se passe. réellement. Mhm. voilà dañ ko war a xam. dañ leen war a ñeme pas ñeme carrément yàpp mais. di ñeme di mën a dem si ñoom di xam parce que Pape Sané bu ma xamee ne gendarmerie euh, par exemple domaine de compétence am fii wala fii parce que tamit loolu mooy différence am ak police ak yooyu am na fu ñu war a agir ay or ag agglomération ak yooyu noonu donc c'est important que le citoyen moom mu xam lool lépp pour bu amee benn question boo xam ne nii wala benn problème dina xam euh, vers dina xam u aller dina xam euh, ce qu'il faut faire ak pour ñu résoudre problème aussi tamit. waaw moo tax ma ne la euh, et période jamono ji ñu nekk nii. Mhm. bu ñu demee ba ay ay gendarmerie ay police ay ay ay douane di ubbi ay ay. ils sur les réseaux sociaux di ubbi ay page Facebook. et comme mhm. c'est assez ah, c'est c'est un peu révélateur que xam nañ ni que tey les Sénégalais ont besoin de savoir mais il faut pas se limiter juste mm-hmm. à ce concept réseaux sociaux c'est-à-dire il faut faire carrément de la communication institutionnelle c'est-à-dire di wax ak nit ñi les médias voilà ils servent de relais voilà mm-hmm. parce que il faut pas que tamit ñu foog ne rek tant que ils sont sur les réseaux sociaux page Facebook ils font de la communication déedéet c'est pas de la communication cest à il faut maintenant comme ñoom euh, institutionnellement dafa am lu ñuy représenté mhm. que également qu'ils fassent ce qu'on appelle de la communication institutionnelle te loolu. Mhm. ñu ko mën a defal ce sont les médias. cest à il faut que tey jii ñu nangu que Mame Khady. Mhm. mën a dem tey GIGN. def fa un reportage. dugg génn xool. non non en fait c'est ça il faut que ñu mën a nangu tey euh, Mame Khady dem Orcutis. Euh, def une visite guidée xool gars yi bu ñu ñuy jàppee drogue bi bu ñu ko jàppee fu ñu koy jenc mm-hmm. bu ñu ko jencee ba pare euh, nan nañ ko détourner ainsi de suite ça mm-hmm. c'est les gens ont besoin de connaître mm-hmm. mais bo ko ni nii na yow doo wax mais après Pape Sané est libre de penser ce qu'il veut c'est ça aussi voilà donc moo tax ma ne la foofu il faut également euh, les aider à aller dans le sens de ce qu'on appelle la communication institutionnelle ñu bañ a yem rek ci Euh, parce que je vois pour la plupart seen communiqué dañoo sànni Facebook rek après pare dañ non non non. Mm-hmm. non non pour des trucs de ce genre c' est pas Facebook euh, excuse de leur faire de la publicité. Mm-hmm. mais c' est carrément institutionnel mooy maanaam euh, ni ni presse bi amee un volet caractère officiel. Mm-hmm. noonu ngeen war a tamit. traiter avec cette presse de Surtout manière mais Pape Sané loolu va falloir que aussi xam nga sànq yaa ngi wax réconciliation euh, population bi presse bi ci population bi lañ bokk mais aussi tamit va falloir aussi euh, mu am benn jooyante bu ndaw ci diggante presse bi ak de l'ordre tamit parce que ce qui s'est passé les événements aussi a vu que ni euh, dafay dañ ciy gis ay yenn ñagas ñagas ah gis nañ ci le cas de Absa André Somon mmh. euh, donc va aussi tamit mu am benn. ñoom ñu ñuy bañ di xoolee bëtu non ñi chaque jour dañ ñuy wax nii ñu ni tamit ñu xamit ñu ni bët bu ñu leen di xoolee mu dina doon benn liggéey bu am solo. moo tax ma ne la sànq sama jël benn wax ma ne ko c'est des Sénégalais à part entière. Mm-hmm. il faut pas que. qui continuent d'accepter d'être des Sénégalais entièrement à part. Mhm. loolu c'est les concepts de 1960 xam nañ ne que boobu le Sénégal venait d'être indépendant. on avait mhm. besoin d'avoir des des des des une gendarmerie forte. une police mhm. forte on avait besoin de ça. mais alors que tey jii on a fini d'asseoir justement euh, cette présence militaire policière de la gendarmerie au Sénégal un peu partout. donc on doit justement aller. parce que tey l'idéal et Mm-hmm. je parle des pays normaux. Mm-hmm. où bu amee manifestation la police encadre la presse pour lui permettre de faire son travail. Mm-hmm. ci ginnaawam la presse bi di nekk sax. voilà encadre la presse pour lui faire mais c'est vrai que li ñu dund ci jamono yi. Euh, ça a créé des heurts. Mm. ça a des des des des des une certaine distance entre justement euh, les professionnels. des médias et les services de les, euh, les, les services de sécurité et défense parce que pour ñoom euh, voilà euh, lu ñaaw la ñuy def presse moo koy génne mais c'est le rôle de la presse c'est le rôle de la presse de sortir <laughs> que mu que rafet que mu mm. ñaaw dañ koy génne c'est ça oui les faits sont sacrés <coughs> voilà léegi nag yéen seen mission mooy lan <coughs> mooy fexe leen ba que reporter bi nekk sur le terrain mm. ou le caméraman qu'il soit assez protégé pour faire convenablement son travail. Mhm. Après, donc, à lui de voir maintenant euh, excuse-moi je vais convoquer euh, la clause de conscience c'est à lui de voir après ndax

Euh, flirte entre la presse mm-hmm. Mm-hmm. et les services de sécurité parce que mm-hmm. ñoom kenn ci ñoom mënul mënul dem sans l'autre ils ont besoin de visibilité les actes qu'ils posent tous les jours bëgg nañu sénégalais yi xamal bëgg nañu médias yi xamal sénégalais yi ni que ils ont réussi jàpp nañu sept kilos de drogue et ainsi de suite donc moo tax ma ne il faut ñu redéfinir ce contrat la ba nga xam ne euh, le journaliste va faire aisément son travail, mm -hmm. euh, le FDS va faire également son travail, mais mm -hmm. il faut que nous respections ku ci nekk respecter sa morom. dans le champ de ses compétences. waaw ku ci nekk. ku ci nekk parce que duñu wax rek ne euh, euh, takku der mais aussi taskatu xibaar yi tamit. Euh, parce que tamit Pape Sané li ñu naan on aura tout vu groupe journaliste taxaw nekk si manifestation di couvrir nga tëmbal leen lacrymogène. donc loolu te nga ah. xam ne ñii te ñu ngi sol seen gilet de presse et tout ça yooyu yëpp faaw ñu ñu ñu ñu ci xoolaat bu baax a baax a baax parce que comme li ñu wax. ñoom askan bi lañ fi nekkal donc euh, va falloir que askan boobu tamit euh, ñoom it ñuy gis seen bopp ci liggéey bi ci lépp nag ak it tamit euh, souvent aussi on les interpelle Pape Sané ci la manière bu ñuy interpeller nit yi Euh, souvent am nañu si bëri tamit loolu duñ koy rafetlu mooy le langage et tout ça hein? parfois aussi tamit condition de détention yi garde à vue yeeg lu ni mel yooyu yëpp euh, ñu si bëri ñun à travers l'émission balance et autres da nga daan dalal ay ñoo xam ne ni euh, dañ lay xamal lu ñuy daj foofu noonu bu ñuy nekk kaaf ak la ca ajoog yooyu yëpp ak manière bi ñu leen di interpeller ah parfois sax am na kuñ fi dalaloon fii dañuy souligner ay problèmes yu bëri ah ci sax yenn saay ay seen matériel yu ñuy yoroon bu ñuy mm. dugg ak ba ñuy génn yenn saay duñ ci gis ak dara yooyu yëpp doon na loo xam ne ni lu ñu war a tenir en compte la moo tax euh, je euh, je mm-hmm. c'est un nouveau départ et il faut aller vers des performances cest à mm-hmm. il faut que aussi euh, les les prérequis yi nga xam ne moo moom na moom nañu érigé woon en mode mm-hmm. de fonctionnement j'ai rien contre mais il faut que ces prérequis ñoom it ñu am humilité xoolaat ko. Mhm. xoolaat les rapports. Euh, mhm. des gendarmes policiers. avec le Sénégalais c'est-à-dire il faut ñu xool ko parce que ñoom li ñuy def il aussi ñu ñuy def yëpp c'est pour le mhm. Sénégalais c'est-à-dire il faut que. qu'on comprenne ça. si il faut qu'on comprenne que ñoom it ils le comprennent très bien. que lépp lu ñuy def. ils le font pour le Sénégal ils le font pas pour eux. ah booy nelaw ba mën a. yàndoor ñoom ñoo tax waaw te. loolu euh, moo tax loolu. Mhm. je crois que tey ci benn panel euh, maa ngi amoon benn discussion où on parlait euh, de la formation mën na leen man je sais une chose. Mhm. cest dire les les curricula de formation au Sénégal muy police gendarmerie et douane c'est les meilleurs en Afrique francophone c'est les meilleurs. ah dañ koy wax kay ba sax sax dañu naan ci booy gis euh, ay représentation ONU ak yooyu noonu ñoom ñoo si gën a bëri man ko c'est les meilleurs bon maintenant nag léegi le problème bu ñu ba di gis yenn yi yenn dérive yi et consort c'est à toute œuvre humaine oui. mais mm-hmm. yooyu il faut le mettre dans leur contexte nga xam ne moo fi jotoon am ces mois dernier mm-hmm. ñu gis yenn dérive yi vraiment euh, yi nga xam ne kenn mënu ko justifier mm-hmm. moi je dis que ce n'est plus de l'ordre de ceux-là qui sont là pour exécuter les ordres. Mais il faut voir. Mm -hmm. qu'à un certain moment aussi, il faut reconnaître que le politicien a mis sa main, de Fodougal Lochom, mhm. dans le fonctionnement euh, de, mhm. de, ces corps-là. Mm il faut, il faut le reconnaître, il faut avoir le courage de le mhm. dire. Waouh! Le, le, seul problème, c'est problème, moi, Sénégal, quel soit le régime. quel que soit le régime. su dee dañu nar a nommer Mame pour que Mame Khady. soit loyal à Pape Sané. le problème va demeurer. il faut que ñu travailler de telle sort que. que Mame Khady sa seule loyauté mooy les textes. les textes ki encadrent sa nomination donc euh, waaw kon kon kon va falloir ñu changer méthode de nomination yi kon